jaajëf. Euh, waaw je suis en direct nga ne. waaw yaa ngi direct man yi yëpp a dégg ak bitim réew ak ñëpp a lay dégg. adduna bi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa rek ci sa sant di leen ziar di leen baalu ak jaajëf Ndiaye man la Abdourahim Ndiaye président de l' association des ambulanciers du Sénégal. d' accord mhm. d' accord léegi Abdourahmane lan mooy jafe-jafe bi tax ngeen bëggoon a wax ak waa réew mi ban jafe-jafe ngeen am yéen. waaw jafe-jafe bi ñu am moo di wàllu communication. waaw waaw ndaxte association bi biñ ko soseeg léegi. waaw euh, xam nga Sénégal dañu ne association des ambulanciers du Sénégal. waaw Sénégal ak ni mu toll. wax dëgg yàlla jotewuñu fépp. Mm. donc su euh, ma la ne am nañ ci àll bi ñoo xam ne yëguguñ koon ndax soriwaay. waaw donc moo taxoon ñu sàkku tamit tout le temps ci télé bi wala rajo bi. Mm. ngeen jàppale ñu ba àdduna yëg ni association du Sénégal mu ngi ci réew mi. waa d'accord. waaw waa léegi comme loolu lépp daal loolu moom lu Sénégal ràññee la ci seen i yëngu-yëngu seen génn léegi nag jafe-jafe bi tax tey ngeen bëggoon a wax ak euh, njiitu réew mi wala waa réew mi lan la da ngeen am jafe-jafe ci seen koor bi. waaw suñu jafe-jafe mooy euh, wàllu renforcement de capacité. waaw renforcement de capacité loolu moo ñu gën a yitteel ndaxte chauffeur ak ambulancier. waaw dafa bokkul. waaw donte la ñu ngi ci am nañ ci xam-xam. waaw waaye xam nga jamono day dox. Mhm. bu nekk rek xam-xam yi day évoluer nangam ak nangam donc dañuy bëgg fu ñu toll rek. ñu ci yokk suñu xam-xam ci wàllu ambulance. loolu mooy lu jiitu ci suñu objectif. d'accord yéen ay chauffeur ngeen. ay ay. ay chauffeur la ñu. waaw léegi léegi da ngeen a nekk ay ambulancier d' accord léegi ngeen di sàkk maanaam yéen eh, yéen ku leen ku leen ku leen formé ngeen bëgg yéen. waaw maanaam du formé ma ku yokk suñu capacité ci. ku yokk suñu xam-xam la ñuy wër. si seen xam-xam ci la yéen bi ngeen di dem da ngeen a qualifié ci wàllum dawal wala. d' accord ci ambulance ci wàllu malade ak nu ñuy jëlee malade nu ñuy. ah waa léegi ana chauffeur ah, léegi léegi ana léegi ana chauffeur ak jël malade non defal naa ñii kon ngeen dëkkate li ngeen di jaar ci télé bi di piim piim yëpp kon xamagu leen loolu léegi wuyul alaaj Sandio oui man sëñ bi yow li nga wax nii euh, dafa dafa dafa dafa dafa garaaw parce que yow ndekete kon yéen li ngeen di jaar ci télé bi yëpp kon xamu leen ci mbir yi dara déet new man la xamuñu ci dara dañuy bëgg di yokk xam-xam laa wax da ne a bëgg léegi ku leen former yéen. renforcement de capacité laa wax. waaw man ne da bëgg ku leen former. déedéet ak ah, waxuñu former de. Ah, mais loolu ku ñu renforcer capacité. waaw mais renforcer kañ sëñ bi mooy former wala. am ñaar ñoo xam ni. Ah. ma ne. waaw dafa am ñaar ñoo xam ni. gars yi dañ di jaawale. Hmm. formation ak ku ñuy former mooy koo xam ne xamul dara. waaw. ñun nag renforcement de capacité la ñuy sàkku. ndax am na lu ñu xam. am lu ñu xam. waaw mais defe naa c'est que yéen xam nga yéen euh, kii. xam nga man euh, son yu. Euh, man kii li muy wax ni jaaxal na ma. Mhm. waaw parce moom mii. Euh, moom mi xam nga kii lu gone kii ni ma ko déggee muy wax mag la waaw léegi moo tax ma ne alaaji waaw kii li ñu bëgg a waxtaan lépp faaw mu ñëw ci télé bi xam nga faaw mu ñëw kii il faut que léegi Ndiaye parce que am na ay questions yu am solo moo tax ma ne yéen li ngeen wax lu am maanaam yéen renforcement de capacité ngeen bëgg maanaam bu ngeen demee di sauver yóbbu au lieu ngeen di xaar yéen kii mais au lieu ngeen di xaar ngeen def li ngeen war a def balaa kenn di ñëw loolu loolu ngeen bëgg ngeen bëgg leen toog rek di yor volant bi di dawal ñëw gaare waaw kay waaw waaw moo tax ma ne kon jotaay bi gën a yaatu bu ñuy dawal hmm. ba ba tolloog dal ci accident maanaam xam nga tey ji mën ngay génn di daw. waaw yóbbu malade ba wàññeeku wala sax wala sax même su dul ambulance ndax ambulancier. buy dox ak tànkam. su gisee accident. war na mën a am njariñ bu mu fa am. waaw dëgg la. donc yooyu dañ koy sàkku. ñu ngi koy jàng am nañ ñu ngi koy jàng xam nañ ci dara. pour ngeen xam premiers soins yi daal ngeen mën ko def. voilà xam nañ ko nag. d'accord léegi. Euh, dañuy bëgg nag nu mu yokkoo. d'accord léegi. Euh, léegi léegi yow dinaa la woo su suma dinaa la woo suma génne alaaji bàyyi leen ñaari émission dinaa la woo suma génne lan du benn lan du benn mu ni chauffeur bi ak ki nga xamante ne nii mais ñi ay chauffeur lañ déggoo lim la wax ñi ay chauffeur lañ ah léegi Ndiaye renforcement de capacité bi muy wax kon léegi su ma génnee dinaa la woo comme ça ñu xool nan ngeen di ñëwee ci télé bi ñu xool ñu am jataay bu yaatu li ngeen bëgg a expliquer pour mu gën a leer ci bopp nit yi. toog mu a yaatu. waaw yéen ñoom ambulance yéen nest dawal la rek. waaw dawal mais dañu bëgg nañu bu ñu yemee ci yenn kii alaaj yi ñu mën a def seen liggéey ñu mën a ñu man a kon ñu former leen pour ñu mën a assister kii loolu lañ bëgg a wax exactement ñu former leen ba nga xam ne dootuñu yem ci dawal kese ah, mais ci lépp bépp bu ko defee nga xam di ngeen mën a wàllu tamit waaw bépp accident bu ñu yem du ñu yem rek ci dawal mais mën na ñoo def premier soin yi def ay kii wàllu loolu ngeen bëgg de ah waaw loolu daal mooy suñu yitte ah, waa Ndiaye kon baax na dinaa la woo suma génnee dégg léegi nag nga ma tamit balaa nga ma am yóbbante bu ma. jàllale waaw yóbbante waaw waaw yóbbante bi lan la. Euh, euh, ñu ngi yóbbante. waaw président de la république bi yóbbante ci ministre de la santé. waaw.